dañoo gis ne ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ak waa santé ak préfet ak sous yi yokk nañ seen i moo tax ñoom administration bi liggéeykat yi ñu jàpp ne ñoom tima war nañoo yokk seen i salaire te ñoom dañoo gis ne dañu leene bedd ci mbir mi waaye nag ñoom dànkaafu nañ nee nañu bu ñu yokkul seen i salaire danañu indi gàllankoor ci li nga xam ne mooy liggéey bi yéen a kaay gii di Le Quotidien xëy dañu xibaara naan ñu daral yi bërëb nga xam ne moom la ñuy jaayee xara ñi nga xam ne ñooy jëndkat yi dem nañu waaye waxaale baa ngi mel ni tulleeg male waxaale bi moo bëri ndax gars yi yoruñu xaalis a kaay gii de La Tribune nee na tabaski ren gi gars yi dinañu ko yéex a fàtte ndax li nga xam ne mooy soble si ak pomme bi ak laaj ji dafa yokk ba maara taali ni mu yokkee dafa jéggi dayoo te ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñoom dañoo mel ne mënuñu dara ci mbir mi yéen kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko fan yi ñu génn yëkkati na ko wax ne Macky Sall dafa bañ askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Casamance rawatina ñi nga xam ne ñooy joolaa yi kàddu a baax nee na Ousmane Sonko kàddu ba tey di l'observateur ñu fekk fa ay maanaam acharnement bi nga xam ne moom la ñu teg ci kaw Ousmane Sonko loole mu rafetul loole mu jaaduwul moom Aïda Mbodj dafa gis na ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi lenn lu nekk ñoo ko yàq Ousmane Sonko yéene kaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi seen suppléants yi ñooy dem ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye nag dina nekk assemblée boo xam ne dina bëri ñoo xam ne kenn du leen xam ndax ñi nga xam ne ñoo nekk ay assemblée boo xam ne gàllankoor yi dina bëri yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy diñu xibaar naan ñu Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké tey jii dinañu ko déglu ca xóota la critique yéen a kaay nee na soo muytulee tey ko bàyyi mu ñibbi këram su ko defee mu mën a tëbaskee ci ay mbokkam yéen a kaay gi di l'info nee ni ki démb ci conseil des ministres bi njiitu réew mi di président Macky Sall jaajëfal na bu baax a ki nga xam ne mooy Moustapha Niasse ci liggéey bi nga xam ne def a kaay ne ñoom la ñu joxar bi baraamu suba ci àjjuma ji lañ leen di àtte yéenekaay gi du xëy duñu xibaar naan ñu dafa am benn jigéen boo xam ne raabi ba la tudd moom ab tiktokeuse la maanaam mooy raabi ba mi nga xam ne mooy fecce ka wëndeelu ak di përee ci tiktok bi raabi ba moomee nag dafa nag doon collecté xaalis ngir nag ñu mën koo dajaleel koo xam ne dafa nekk dans le coma waaye nag bi gars yi dajalee ba lu toll ci dix millions raabi ba moomee daf ko daal di détourné teg nañu ko loxo mandat nañu ko dépôt suba la koy te ki nga xam ne moom lañ ko doon dajale la kookee dafa feebar ba mara détaillé ba nekk ci hôpital cité woo maanaam dans le coma la nekk yéen gi di vox populi xëy xibaar mbir mu doy waar a doy waar moo xam ne ma xewee ci diwaanu ngaabu ga ca ndax nee nañu dafa benn sëriñ bu tudd sëriñ mooduloo ngaabu siñora moom moomee nag dafa am benn taalibeem bu nekk Espagne taalibeem boobee nag jabaram dafa nekkoon Dakar mu fexe nag ba mu daal di koy héberger waaye nag bës moodu moodu bi daa di filmer bi mu ko filmer nag moom soxna si dafa jël vidéo bi am ku mu ko yónnee ki ko yónnee nag moo doon chantage bi jot koo jox lu toll ci 4 millions journal bi di Vox Populi ñëw na na ko rek ki nga xam ne nag moo doon moom teg nañu ko loxo ki nga xam ne nag mooy Modou Modou bi moom tim nee dina porte porte plainte Serigne Modou Lo Ngabou Junior yéene kaay gi di Rewmi Quotidien nee na génération foot foofee tamit lu doy moo fa xewa ndax Olivier Perrin mi xam ne moo nekkoon manager bu génération foot moom nag dañu ko doon chantage ku tudd Mortala Seck moo ko doon chantage ba jot a jël ci moom xaalis bu bare bare mbir mi nag ni mu demee Olivier mi moo jël ay photo yoo xam ne daf na ci dungu yónnee ko ko doon chantage jot moom xaalis moom Mortala ko yóbbu woon mooy Dubaay waaye nag ñi nga xam ne ñooy avocat yi Oliver Perrin ñoom nee nañu seen client bi ba muy yónnee photo yooyee boobee dafa màndi woon maanaam àndut ak sagoma Mortala Seck mi doon santas moom nag nee nañu nañ ko tëj lu toll ci ñaari ati kaso yéen kaay gi délibération nee na Baye Assane Mesere mi nekk ci internet bi jamono ji ma ngi ci ab garde à vue ndax Baye Assane Mesere dafa waxoon ne dafa am benn jàngalekatu alquran boo xam ne moo ko woowoon na ko man ma dara Baye Assane Mesere moom yoon daf ko woolu ngir mu andi ay leeral yooyu mu yëkkatee waaye nag bës nee nañu moom la si jublu